Free Money Mastercard, disponible dans les agences Free. Avec carte Free Money Mastercard, des Free qui s'accalpent. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria, Royal Horizon Baobab, feel free, feel home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. damane télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33 Bravia Hotel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valises chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. Au Royal, la Laïdjara remercie ses partenaires M60, Toi et moi, boutique. capsi, hot lu feb de tedd Capsi Capsi Capsi Capsi Capsi Capsi Capsi welcome to my dark side teewal si cap teewal sama Capsi si cap bi de neexee ko di jaay brek Capsi la lépp di

xam nga laa la bëgg xama eh gars yi yow yow ñam nga wala ñamuloo affaire tardé ni ñam nga wala ñamuloo li ñu waxante woon jox naa ko boy bu ñu jafa di quoi boy eh ñi doon ñu fi de dëkk ñu fi dañoo ñëw bu yàq suñu sikam suñu side lañ bëgg yàq boy boy boy gars yi voilà boy ba dañ li dem di boy non boy boy

booy bi li mu wax ay preuve leer la ci am

booy yéen la ñan. père ñun la waa Coow Buzz. Coow lu ngeen def sama kër lu xew. jaral jara lañ soxla woon dañu bëgg a waxtaan ak moom. nga ne ci coow coow lan. père ñun la waa Coow Buzz. eh taxawal. Eh, eh, wàcce caméra bi eh, wàcce caméra bi yow. booy yow la waxoon waa caméra bi. nga laaye yow laay waxal tiset bii nii dafa ndaw bu yóbboo nga wutal ma beneen tiset nañ dem si a tiset mu defal ma beneen tiset lii de mel sama tisetu rax yàlla yor naa fa benn double da nga koo rek mais yaa gën a kuul ci grand yi sa size sama tiset yow yow gis nga ndaw moo gën a rasaman da nga baax rek naa fi man rasaman de du ma xamee dara ay dama baax rek damaa gis liggéey bu rafet bi ngeen di def. waaw monsieur le maire mani foog ma félicité leen. waaw ñun lu ñu war ak la ñuy def rek xam nga waaw mais initiative yëpp nag laay la quoi. tudd ñoom doon tudd. waaw ak sama gars yi ay ay ñoom juróom ñoom booy ASC ak ñoom juif quoi. waaw effectivement bëggoon eh, naa ya. waxtaan ak laay waaw moom moom mii nii toog sax mën naa la ko paas. jox ma ko jox ma laay. walaay. booy ma saagaati de. wax ma saagaati laa wax. Oh. booy laay la laal def booy. Mais eh boy, ben, fais chier quoi. Mais eh boy, ben, je comprends pas quoi. Boy, les mecs, tu comprends pas. Et eh ben, boy, l'outar c'est ma conviction, mon top. Si je suis gauche, je suis droite. Nous me donnons non. Te boy, boy, fais attention, yo, a le gain de ce groupe. Mon affaire du système, mon mot top, le système, il n'est comme tu. Boy, là, de nous, bah, boy. Gis nga monsieur le maire, hein, moo la gën a nekk opposant la alors boy. Dis nga moom ay affaire de nguur yi nekkul si de boy nekkal nit boy. wala kilifa la booy. alors oui monsieur le maire. toi aussi calme-toi Hein? ah. waaw oui ça va oui bonjour oui. ah oui merci ah mais xam nga waaye li ñu war la dañuy def ah. d'ailleurs demain, nañ jàkka ji toilette yi raxas nañ ko raxas nañ morgue bi waaw terrain basket bi et tout ça kon yëpp tout ça affaire moom oui non ben, benn mbalit desatu fi hein? ah oui merci beaucoup ah. ngeen pare nag parce que dama leen di recevoir Yo!

boy, sombi bi ñoko ko ñokoy ñoo koy naanandoo lu leer laa la wax jàppale fi ngeen jàpp man kenn mënu ma doublé. Ah, eh lu xew fi waaw boy eh boy eh boy eh booy wàcceel sa caméra boy booy wàcceel sa caméra bi yow da nga dof wala la wala da nga yakkar man xawmu la xew ak ni nga téye sa caméra ni mën nga use ay image ki ngay waxal pa jara nandité la dafa xam lu xew ta boy yeen bëggoon naa xam yéen lan ngeen di doyee laay lan ngeen ko soxla. eh waay waa coow li bës. ñoo ngi nii. namm naa leen de. ñoo la raw. mbaa am jàmm. léegi nag coow li bës a ngi. soo leen coowee coow li bari soo leen coowul coow li bari léegi nag xam nga lu ma bëgg. balaa laayee ñëw ngeen wax ci moom damaa am diw yu may jaay damaa bëgg ngeen may ma ci bës boo xam ne Sénégal gépp danañ ma dégg ngeen door wax ci laay xam naa yéen ku loo leen laal mu jëm kaw tubaarkàlla. loolu dara. man maire bi daf ma jaaxal quoi. jolly buzz lañu wax de mu ngi de tubarkal di bi nga xam kuma ku jaayal nga du sa yaram du nes nes gaay da nan dañ sa baara mu nan tës tës waye dama ne da ngay du sa yaram mu nan tes tes jéeg di kuma ci rocciwul sa yaram du xess lii daal la ugué dama xamal xaw ma nu koy defee tubarkal la mère aw la ñu wax ak rocci zel nee la xale bu bëgg sa yaram baax ma nga laal mu roccé ku weex kay kaay ci si mère awa damay rocci rek muy weex maa koy rocc fii tubaarkàlla ñëw lu ma la jaayal baaxul diw bi baax gën baax loolu di qualité maa koy jaay man may awa rocc eh. maa ngi maa coow li bës what's up itam yàq sama publicité bi nag yaw tamit what's up tonton. oui ça va. nga. damaa mës a bañ a fay yow xanaa ku bees nga fii. waa ku bees laa fi keeñ. yow ñaata at may jël xaalis bi di ko teg ci suuf bi noonu. baal ma maa ngi jéggalu dootul ñoo ñu yebaloon fii si yéen ndax gis nañ sa problème ak waa koñ bi ak nayim bi gis nañ aussi ne activiste nga te yaa ngi def sa liggéey ni mu waree ci société bi. Je gis ay remarque que population bi contane nañ ci seen liggéey ndax yéen a ngi seen buñ ko waxee ak buñ ko waxul ñun nag ñu bëggoon collaborer ak yow ànd ak yow jàppale la suivre activités ñu doon laaj sa xalaat mais boy yéen naka ngeen mën a ci biir kër gi a wax ngeen ni da ngeen wax ak moom man mi bàyyam ngeen romb ban la indil population bi kii. bës xanaa imaginer ñii ñoo sama kër def ci documentaire.

est-ce que da ngay jaay café Touba non dañu bëgg nga wax ñu ci lan nga nekk ñu xam ko. père man damay développer dëkk bi père yaa imaginer lool yow est-ce que est-ce que imaginer impact bobu xam nga ba légui da ngay gënt yow ci gënt gu jéxagul nga nekk sa wax dof yi nak nang ko arrêté bis bo len ko topé yeen boy bu mu yobalen ci yëfu dofam yi yeena xam man ëlëk bu kenn ñëw di ma wax dara parce que ki du nit. père xol projet bi dama ko yagg taxawal te projet bi xol bu soté yow xol dañ si gis sa bop eh, xol bu ma waxat non bu ma waxat dañ ci gis sa bop

mais wuy ma affaire yi ni muy demee noonu yéen documentaire bi xam nga yéen a ma seet si ah man maay laay jara quand même ni muy demee sponsor yeeg yooyu moo ngi naaj de affaire dafa war a dugg ak yooyu mooy loolu parce que tamit dofu ba de du ma ngaaga xam ngeen nante laa gis ngeen ma dégg nga waaye du ma ngaaga dañ wax boobu wala boobu xoolal bu bis bu ne ma gañe la waaye doxal faa say unaan maa nii da nga mas a dóor kenn ah. waaw l'histoire bi da dox lan la yow. saa yi war nañ def loolu. waaye dama koy toos dama koy toos waaw yàq nga liggéey bi waay. salaamaaleykum. kay doxal. salaamaaleykum. tey dama koy toos waaye kii ba ka bëgg a rey. duuta mun na ah duuta. waay sama dayoo. sama digal ko dañu noddu dañu noddu alaaji sa yi soxal yow mënul am nga bàyyi dañoo man maa ngi jàpp sax damay galax ndiku rek ak yow moom ñàkk personnalité nga yow en tout cas jàpp julli sax ak ci ñaan la ñàkk nga fayda trop topp damier bi ba nit bu taxawee di leen nuyu sax doo ko fay yow dama xamul yow faa far faruma fenn faruma fenn ba xamul fa say jara tey la bis bu eh yow wax nga ko bi mais ko la jour su ko ci suba dafa ma la allo boy ah mais ya boy <laughs> yow xam nga xam nga ni yow man ma lay wo heure bi xam nga lolu mais sa pa yaangi fi ci place bi dem ba woñu soupe bop waxuma la bop xar bu jigen nak kuy xar bu gor kuy nga dafal ñu supp bu taak boy ta na nga bay xel ni ay mag ngay suppal. loolu Wah, ñu ah ëpp naa de. Ah, waaw. waaw jéego man sànq bi ma jàpp waaw dama juwaale satala yi. chut léegi yow da nga sob quoi xamoon naa di nga lal sama satala yow yaa tax ma takk ci morso. ah kon yow da nga màndi ba ah? eh yow tax la nga torop nga may wax yi da nga gis ma mandi xolal bu baax li ngay wax de fala yam na yow din mala bolé yow yow ba moy tulee dama la yow ya ngi mandi ba tay la ila eh ma deme rek may yé 7h nak dama am rendez-vous 9h tamit lay amal habitude wu ta di yee sa bopp ma mos a gis ma tak montre toi bi dañu këreel ay <laughs> réveil pour tanku ñu nak mama tanku ñu bati yow yaangi ni bëgg dem naan yéema sept heures te yow sax fan nga jëm ba may yee ba ma la yee ay sept heures monsieur sala maire moo ñu convoqué ma ka tey man nga ni ah oui turki jam mënuma liggéey muy niil li ma dag ak li ma daj ci kër gi mënuma liggéey muy niil yow monsieur le maire naka la lay invité sax yow jox la na def da lay da lay recevoir yow lay ngay nelaw mu nelaw lu ma yeewu ma nelaw du am bu ko xalaat dama lay sang ba nga set wecc taqal la ba nga dëgër nga jàkkaarloo monsieur le maire. non tout sauf serment hein non moi je suis pas mystique quand même non moi je développe pas le Sénégal avec du mystique mais ma ngi le Sénégal lu dal yéen pour yéen lu juglet il faut ngeen dem xar fa xuufa gàllaaj nen doj nen ay pétaw nekk lañ pour mën ci génn mais non esprit boobu dangeen ko dépasser quoi ma non man du ma sangu de. ay biteel ak yoy yoy laa ragal. laaj ma fi won ben pétaw nak man sangou ma ma. samay conviction dépassé na loolu. du ma liggéey ba fii yalla tàcc ma ma war a nga di ma ko yàqal de. yakal du ma ko nangu de dama lay sang ba nga set dama lay tak ba nga deugal nga jàkkaarloo monsieur le mer ba lo waxa mom du ci tek bat buma fontona fontoona bul yàq sama liggéey. Votre série revient après la pub. Free Money Mastercard, disponible dans les agences Free. Avec sa carte Free Money Mastercard, des free qui s'accalpent. Resto, so commencé de Tokobay. yow xam nga jara li ñi ñi la nëbba xa ruuma ndaata xa mëppa mëppal man mii maa kaa wax nun mënunoo nekk fii chaque jour ña la ànd di dem ji julli ji si jàkka ji yow nga ne ak dee doo dem faaka teg maa xam ne benn affaire maa xam ne benn affaire mu leer su arrêté wul waxam ji damay jug bàyyi damier bi ñibbi sama kër non damay ñibbi waaw damier sa damier jara jara damier sa damier jara déglul bul mer yow da ngaa tàng xol jaañ mi wax na dëgg de wallaahi ñëpp yow la ñuy waxtaane fi mu nekk nii naa la xamal lu bariwul de xam nga ñun ñeenti ñi kenn ku ci absenté mu feeñ. voilà ba léegi yéen ngeen bëgg lan noonu wax dafay leer te bu leen nekk ay naafiq yéen xam ngeen ni jàkka jee suñu jullee ba pare ci biir mbooloo mi man lañ ci seppi. dëgg la aywaay parce que non bu fekkoon day wax te yàlla rek tax. lu mu wax ñu ñëpp ñoo ko bokk. mais daf may seppi ci biir groupe ma ne lu mu wax man la gaar waay. loo may xoolee dëgg la pour nga may pièce nii pour nga bañ ko léegi lan toog ci jàkk ji mu wax ba pare tudd sa tur di la gaar waale seen kanam la ay ay ay ku lal kaana mu ran yàllaa ko wax bi muy wax li muy wax kii yoo ko moom imaam bu la fi tegee da nga a mandu waaye na ku ñëwul jàkka ja lu si yoonam dafa xam nag kii dafa feebar wala déet ñoo nga toog loolu nga ko def léegi bu ma nekkoon ca jàkka mu tur gaar waale ma jërë jug romb romb lu ko ne ko pàcc ko fa looy li ma wax ni yow xaw ma la la taxa fii pa rek problème bi lan la liberté 5 ngi nii mën naa dem julli ji ay jullit ngeen da ngeen di julli may julli man maa préféré wul jullee fii ma alaaji waxal yow bu ñu seetee philosophiquement techniquement teg la fi imam moo ko ñu teg ko fi imam xoolal man mënu ma imposer sama bopp te du ma pousse sama bopp te du wut waaye ñoom xam nañ li xew eh, eh. benn yoon rek eh, ah, ah. benn yoon rek ci kanamu jàkk ji ñu teg ma ci kanam koy waxal ma dugg Faatiha jàng Faatiha ba mu jeex yéen ñëpp ma yóbbu leen boo ko nag nga waree ñëw nag wane sa bopp déglu ma xam nga lan la ñuy def man dinaa woo pétition ñu def ñu def élection ñu def élection ku ne sànni sa imaam carte ñu voté la nga toog imaam yi xew léegi nag jamono ji ni ñu moderniser imaam yi xew léegi ay gentleman lañu loolu moom na leer ay imaam yi jantal la xew léegi sol près du corps taxaw wax lu mel ni midi ah, ah ah ci <laughs> laay lii lépp danga koy songool déglu ma rek songool ma lii bu ci bàyyi benn yii yëpp songoo ko bii nag moom naanal ma ko mi ngi ci muy tiit tiit tiit moom mii dañ maa lii dafa am këkkatar. laay xanaa yërëm moo ma laay xanaa yërëm gisoo li ñuy dund si biir kër gi li ñuy dund si kër gi nga defee neen la ah mbayoo yi ni bi amee 17 ans la dem jàngi ñëw andiwul dara ci kër gi nga defee lu ko yóbbee du cat sa papa grand place bi mu nekk da ngaa neen la ah xanaa gisoo nday nday kan moo ko dàq ci koñ bi. jongo ma ci koñ ba bëgg a dee te mënu fexe kenn kenn ñëpp jar nañu ba mu des moom ni mbaa jàmm la am naa nal ma lii waay ah. yow tamit te yërëm ma te ndey nag dafa génn te yii boo koy sangoo jigéen waru koo teg bët damaa bëgg balaa dikk ci kër gi nga def li nga war a def lépp balaa ñëw dégg nga ok yërëm ma sonn naa ah Oke. Oh, juróom juróom da Aku dégg de aku waaye suuf bu ñëwee moom tam yee bi moo fàtte kon dara suuf bi ñëw na waaw père yéen ma laaj leen yéen kañ ngeen ni reeree kër ga booy da nga mënta noppi booy ma laaj la yow kañ ngay tëj sa gémmiñ maa ngi jégo xoola da nga war a noppi ah waaw sama xaalis quoi ndax man damay dem waaw ah, dërëm yow xanaa bu ñu lay jaay doo xool. lala ana làmmiñu bopp bi bopp bi ana làmmiñam. waaye bopp xar day am làmmiñ waay booy. booy tête vide nga fi indi tête vide ana làmmiñ bi. ana Lamine xar mi da nga ko lekk ana livreur lek Lamine xar no xam nga li may wax tay ni yeen yeen supp ngeen ko yoni bop xar bi ñew mais Lamine bu ci manké dafa jox té père ngeen xoolaat li ngeen ma jox ndax essence dafa yokk léegi léegi da nga wax pompes yi ñun suñu nekk yu teel nii day déconné day déconné waaw man ñi ngeen nodd wa léegi ñun dañu wara dem julli ji ba paré door a ñëw reer wala dañu reer ba paré dem julli ji da ngay julli ji damal julli so soo fekk ñuti yow bu fekke amulo bop ñun ñi ngeeg suñu xel dëgg yalla yow li nga wax du xam-xam puso bu bu tànk jëri lañ la tegal heure bii nga koy mën a dóor am dara mm. mais soo demee jàkk ji julli ji ñëw fekk mu sedd mais graisse gi mooy jug ci kaw boo dikkee doo am dara bu seddee yàqu day way voilà exact voilà imam voilà da nga fekk sax ña la waxtaan fi léegi fi mu toll nii dañ ne dañuy julli ji ba pare door a reer wala danoo reer ba pare door a julli ji waaw jaañ ku ko yónni am na lu jiitu loolu seen jotaay bi dara jekku fi eh, ay way mag yu toll na yéen heure bii ngeen di reer ci mbedd mi bi ngeen xëyee ci suba ba léegi ci lu naqari yàlla ngeen nekk déete di kart xaalis gi daa mën tooñ nag ah, ah. yéen bu ñuy wax deru sikaab bu yàqo yéen ñii la te xale yaa ngi màgg ah. ah déet yow foogu àggunu fa noonu dañ la posé boole ci nag di jëw jabaru jaamur ju fi romb ngeen teg ko bët teg ko kàddu yu ñaaw xam nga lu ma leen di wax seen jotaay bii saye boo ngeen jóg ci loolu rek laa am lu ma leen di wax nag wa salaam. kii daa am xam-xam kii yow kii yaa ko bàyyi ci li mu nekkee kii amul xam-xam kii yaa ko bàyyi ci li mu nekkee. attaqué kii naafiq nga naafiq nga. kii moo ñu yem yow seytaane yow. léegi nag waay yow. kii lu muy def kii lu ko def taxawal. tax eh, eh, non doo def say dof ba pare. Eh, kii dafa gàcce la lan la. gàcce koy rey nii. xam nga lan la. jéego. jeego kuray ki yow kuray dafa ndànk kii lan la da malaise la wala lan la iya, jeego mooy fëgg dënd bi pour mu naan rosé kii dafa naan iya, jeego saay dana dund kii dafa xewa naan de bisama lay yow laay tiital nga ma looy def fii heure bi ak sa garab yu bari yi ah da nga am combat te yëguñu ko yow gis nga sa boobu dijj bi boo ci yokkee jaal di ya, nga xam wax en plus nga ne dungu ci digg kër gi nii man bu ma um de. yow xam nga ne um nga bu yàgg dajeeg ak jinne nag tey ngay doog a dajeeg jinne taxawal bu trois heures du ñëw fi ay kii ak yooyu. lu si ñu lay waxal yëpp dëgg la te gis nga amuloo xamul de gis nga yi may sangoo nii boo ko xoolee doo am jëkkër del xulli bu baax di sogoo sax. ooy toppal hamburger ak shawarma yi la la ren mbay mbay nga jógee amoo benn classe wala trois heures du mu nekk fii di kii. 남나는 것도 있고 하긴 februar sungguh ikan lagi. Diego. Eh, mau eh, Diego. <laughs> fëgg fii nit ñi di génn. xam nga lan la kii kenn du ko du ma ko nangu bàyyi fii nag mu fi fanaan nag fekk ko fi jël ko dugal ko. waxul laal bu ñu fi fekkee nag xamal naa ñatt oh. est-ce que xam nga man gàcce googu du ma fekk fii. ah waaye kon bu yeewu bu ngeen ni bu ñu lan la lii lan la sangoo géej gi sax du tax sa problème réglé yéen kon yaakaar ngeen ne lii image yi moo war a dugg ci réseaux sociaux yi lii la. Hey, hey, light. night, you Don't touch your wife. Well, name get him. masque masque masque allez non merci beaucoup. merci vraiment. Ça va casse ma casse. non non. allez <laughs> merci et eh, bonne journée. merci. Hein.

Casamance bi la. man ma yeewoo Sicap fii nga naan Casamance. tu ne comprends pas. non non comme xam ma li ngay wax monsieur le maire. tu vas bientôt comprendre my boy. pardon. Euh... boy. non. monsieur le maire. le premier magistrat de la ville man ngay jaay mystique. fii bombe boo fi dugal ma désamorcé ko dama lay wax loolu. te en matière de mystique. fongol limbi. Jérusalem Afrique du Sud Gambie fu ne dem naa fa man mystique rek laa xam ci laa judd ci laa yow ci laa màggee te boo moytul tu vas mourir bientôt. mais sama yaay moo ma jox benn butéel ba sangoo ko nga may waxoo mystique. ma ni sa yaay moo la jox butéel kàkkatar bi la la jox xam nga xam naa naan te kàkkatar bi la. non musal waxuma yooyu muy ma wala moo fi indi nag ki la may bu le maire may doyee lu tax nga woo ma fi. ah te xam nga damaa amoon ci yow yërmande bëgg laa jël dugal la ci maire bi dimbali la ndax yow da ngay wër di parler rek di wax rek. loolu tax nga woo ma may ma tuuti rek. mais à ma grande surprise nga dem jël kakkatar bi sangoo ko pour ñëw déstabiliser sama kii. il faudra se lever de bari il faudra se lever de très beau matin pour être fii daa moo fauteuil est-ce que nga baax la ñeex. Oh, mais comportement yi nag ñun fuñ jëm ci dëkk bii

moom moo leen réew mi. jàllale jàllale fële nga xam ne moom moo leen ko bàyyi ko bàyyi ko moom moo leen ko day yomb trop. foto nit ñi waaw foto nit ñi la gis nga bougé day yomb da nga koy def. waaw gars gars naa nga foto nit ñi gars naa nga naa jaarale. damay laaj booy yow puusal nii booy yow. booy maa ngi wax ak yow ñu xew loolu la loo def nii lan la. gars yi laay woo mafia bi laay woo. tey mairie bi du liggéey. non tey mairie bi du liggéey laa wax. churu lala, nanga lala, boy, like hey, that. Hey, kabala. eu não you rude me ni boy. Yo boy, no mujhe musala mer. Ah boy, man, I'm not job. Gane? I'm not job. I think I Ah yeah. Ah yeah. Welcome to my dark side, yeah. Sacré cœur, liberté en bastide, cap pau pap, cap caraca, come on. Hype on the neck, a few more capsi. Ah, yeah.